Euh, son yi bu tey loo indi. Adja tey de euh, naroon nañu am gan gu mag waaye day xaar alxamis. kan la Sow bool fajiri. ah waaw Alioune Sow ku ubbi réseaux sociaux yi. <laughs> Euh, fekk fa ay mbiram. wax dëgg yàlla wax naa ko nee naa ko nag moom ay waat moom ñeme nga ko. te dafa bokk nag ci symbole jullit bu ñu tuumaal waat moom baax na. Alioune nag dañ ko tudd ay doy waar yoo xam ne ci biir wal fajiri ci réseaux sociaux yi yàq deram ak ñeneen ndax loolu lu am laak lu mu ci doo nekk Alioune Sow mooy kan ci wal faji rek lan la doon jeudi incha allah moom la ñuy dalal ci victime di net waaw jot nañ ko nee na incha allah ci barki barki borom Touba. 15 euh, heures danaa danaa a ñëw. waaw nee na moom ci nee na ci barki Sëñ Bamba 15 heures danaa teel ñëw. Mm-hmm. kon dinañ ko xaar mais tey dañoo ñëw ci couple Mabo. Mia ak No fees mooy jëkkër ji. noonu la tudd. Mm-hmm. No Face euh, lan la. Nafees lan la nit la. tur la tur wi turu lan la. kii wam la de. Euh, surnom la ah voilà sur voilà surnom la dama doon xalaat ndax. surnom voilà naka gisee. voilà waa ji bi mu depuis mu tas ak Mia ba léegi. Mm-hmm. lu ñu xamoon dem na bitim réew di liggéey. ndaw si mi ngi fii di yëngal di rij bëggëj. di liggéey di rij bëggëj. di liggéey ni nga waxee ku góor ki muy liggéey waxal ku jigéen ki di liggéey. waaw mais loolu ndax non non non non non man je ne suis pas d'accord. xam di liggéey waxal rij bëggëj moo way rij bëggëj. loolu ci liggéeyam la bokk. mais moo way riche rek waaw mais attends moo way riche wax kay moo ko waaw xam naa ko mais mais mais xale bu góor bi mi ngi non xale bu góor bi mi ngi extérieur di liggéey loolu la wax waaw te moo am ki mi ngi jigéen ki mi ngi liggéey waaw ñun ñun mais bétti mi bétti tey naqare na deret de saa ah, ah. looy rek yow saa suka tey dafa jéegu ah. nga ni miyaa liggéey gisuñu loolu suka jéegu da arkara wallaay waaw léegi ndaw si ginnaaw yàlla ndaw si moom <laughs> ndaw saa ngi fii Adja di riij bëggëj ak di yëngal euh, ginnaaw baat wax dëgg yàlla man waxoon naa ko ci sama benn vidéo TikTok man nee naa ko man dama leen bëgg man du may déglu musique lu bari mais man dama leen di déglu ndax dama leen bëggoon di leen topp seen ay reportage daanaa wax ni alaaji ni ko mhm. ñaar ñii de li ñuy def way moo ci gën a ndaw dañuy dem ba ci àll bi fu nekk bu dee daa ngeen leen suivre yor seen moto boobu moto lañu daan yor naan ñun mhm. suñu yor ci ñor oto mhm. ñun moto la ñu yor dëgg la fa nañu ànd fa léegi nag yooyu yëpp rafet wax dëgg yàlla sëy nag yàlla moo ko kii après fu mu war a daggee dafay daggee mais ginnaaw bi mu amee nag waa ji la ñu wax ni dafa takk-takk suuf mhm. xaw ma nag ndax dañuy yàq deram xaw ma lu ci xew jàngat bee ngi ci bu ñu dégloo ojo bi nga xam ne ndaw si ñu takkoon moo ko wax ba pare ñu dellu si jàngat Modou Diouf allo dama la woon a bàyyil vocal parce que comme mënuma la dégg te mënuñoo waxtaan te dama soxla libéré wu parce que am na am naa lu ma metti damaa soxla libéré wu damaa dugg ci situation yu ma xamul te dama soxla libéré wu même su fekkee ne man ak yow mënatul nekkaat man soxlaw ma sax ñuy nekkaat man ak yow parce que lii ku ko dund ku nekk bu fekkoon ñeneen ñoo ko dund ñu mel ni man amaana xaru nañ bu yàgg mais man yàlla moo ma dimbali sauvé ma ba loolu nekkul sama xel li nga ma def nii duma la ko mës baal ci àdduna duma la ko mës baal te bàyyi naa la ak yàlla suñu borom parce que da nga ñëwee jouer ak man danga foo ak man ba mu neex la danga ma nax ba takk ma sama famille bañ samay mbokk bañ ñépp bañ faalew ma kenn lijjantiwu ma kenn sama yaay wax amul lu mu waxul sama frère bu ma bokkal ndey ak baay amul lu mu waxul amul nit ñi nit ñi lu ñu waxul lépp yaa ngi koy dégg teg sa tànk ne ma duma la mës a bàyyi ñii li ñuy wax yépp di lañ rus dinaa leen rusloo ma gëm la topp la déggal lu nekk ci réseaux sociaux yi déggal la lu nekk ci sa sëy bu njëkk bi lépp ma gumba tax lu dugg si dëgg la ci réseaux sociaux yi laa la xamee de waaye teewul xooluma xooluma sa démb xooluma dara ci yow su fekkoon dama doon xool liñ la doon waxal walla li jot a génn sa yow sa vie sa vie privée lépp ngi ci biti dara umpuma si dara umpul kenn si àdduna bi teewul ma sëy ak yow nekk xale bu ndaw nga ñëw fekk ma ci sama situation ma xajal la ubbil la sama porte yépp nga nax ma ba takk ma billaay doo ma déglu di nga coupé de voilà mi ngi noonu kon ndaw sii daal la ñuy wax ni euh, wala boog moom moo génn présenté wu que moom mooy jabaru Nofees moo nekkoon jëkkëru Mia ndaw si nag boo ko dégloo ba ci biir dafa mel ni kuy def communication ndax nee na ko envoyé naa lay audio tontu su ma la wooyee doo ma te audio bi appel la itamit moom moo enregistré li muy wax lépp waa ji nee na tekk léegi nag ndax noo fees la doon woo kii moom moo koy bërxal léegi waaye léegi damay def ni saa njóogu di def man sama xel ak li ma war a wax kenn du ci dugg ndax waaw ndaw si kii di élément bi da mu naan ma ndax waa ji lay waxal ma ni ko déglul waaw dégg nga maam waaw waaw léegi man kenn du ma infiltré sama xel kenn du infiltré sama xel waa kenn du infiltré sama xel diglu ba rek léegi saa ji saa bu bu ñu a def émission li mu war a wax bu kenn dox ci sama waaw kenn du dox ah, ah, la dëgg la ne nii nekk tal boo xam <laughs> dégg nga léegi nag Omar ndaw si mu baal ma nag man li ma déglu ci audio bi mooy ku ñàkk kilifa la waaw ndax man de su ma demoon kër bét yi di ñaani doomam wala ma dem kër sukaa di ñaani doomam ñoom ñu bañ doom ji ni day ñëw man du ma dugg mm-hmm. parce que way jur dafa am solo ci sëy yow nee nga da ngay dugg ci li nga wax mm-hmm. ñu wax sa frère yi wax sa yaay wax sa baay wax nga lànk ni da ngay dem ba pare ni takk suuf lañ la takk mm-hmm. am na les soxul ci sëy bi bu dee lu am la bu dee du yàq der daal jombul plateau bi nag dina ñëw ndax ay yàq der la wala takk réellement la wala est ce que jaroon na muy ñëw ci réseaux sociaux yi di weer ab sëyam waaw xam ne tey jii dafa am benn booy Sonko bu neex indee débat fait divers mu ni ma booy focus. enjeu bi leneen la. <laughs> enjeu bi moom nee na enjeu bi leneen la. nee ah. na fi dëkk bi toll enjeu bi leneen la. Ah. maanaam talul waaw moom loolu lay wax. waaw bu bu dama koy dugal foofu. femme bi nii. waaw parce déjà bi muy wax tuddul tur ba nga xam kan lay waxal. waaw te li mu def lu yomb la. Mm-hmm. woote enregistré na diw laay waxal. loolu lu yomb la kon ñun ba léegi xamuñu kan lay waxal. waaw. déjà comme moom ñun xamuñu kan lay waxal man duma jël wax ji di ko dóor. Hmm. waa ji mu. kii bi moo ko takk. waaw nee waa ji ñetti fan la fa def këram ñetti fan. waa ak hmm. ak lu lu mu fa lu fa mën a def. yaa ngi beneen bi ci topp mooy il faut nga xam waa ji man waa ji dama ko respecté. Hmm. pour plusieurs raisons. lu tax mooy dafa am gore. ñàkk ba pare gore damaa gis ni ki mu ko seqaloon du ñàkk ni ci am gi gore na ci mais ci ñàkk gi gorewu ci dafa ñàkk ba pare ñànki lu tax nga wax ko non parce que pourtant mi ngi ci liggéeyam da di liggéey mais non non liggéeyam la plus comment ça du ko seetaan du ma ko déglu yàlla rek moo tax may wax mais bi mu ci jógee ci sëy bi mhm. dafa am ay actes yu muy teg yu ñu ko xamewul woon Mm. man gëm naa ni bu doon nobeel am na ci diggante mu waaj moo gënoon nob waaj. Mm-hmm. parce que ci lañ ko gis muy lang ak ñoo xam ne daawul lang ak ñoom. ci ay jëkkëru jàmbur doon waaw doon jabaru jàmbur balaa idée gi jeex. ñu gis ci moom comportement boo xam ne xamuñu ko woon mooy ci na muy soleek na muy doxe ak na muy waxee léegi nag mattu àll nag da nga Omar. Hmm. mattu àll nag ku ko ne ànd ak moom. yaa ngi gis. Ah, àll. daf daa am loo xam ne jigéen da ko war a maytu mooy tasal ma takk la. tasal ma takk wala fi neen boo ko toppee ñaaw. Hmm, hmm. d'accord pour man ku jigéen ki dafa war a dal dal ci situation bi séparé na ak waaj ji dem na moom mi ngi ci musique am na gérer musique am am ci leneen d'accord kon yow femme bi doon wax ci audio bi da nga gëm ni da yàq der non femme bi dama jàpp ni moom man ba léegi parce que bu yàq der te deru kan yàq ba léegi xaw ma deru kan lay yàq man moom dafa wax ni jëkkëru Mia moo ko takk takk suuf non non ci koor gi la ko takk après créé nañ seen date ginnaaw ba waaj pare na vacances am ñëw na def na këram trois jours dem bàyyi ko mais loolu moom mooy wax. waaw mais man waxam yooyu dara ma ci doyul parce que da nga dama déglu audio bi attentivement dama xamul kan lay waxal ba léegi. d'accord lépp sama problème mooy te yabuma waa ji yab gi mu koy jël wax wax wax ji di ko askanale. d'accord mais li ma bëgg mooy. ñoom ñaar ñu seqoon sëy bi am na ñu ne woon a complot la dañ doon bës dañ doon lii tey ñu dem ba tollu niveau bi man tey Mia bu mu ko jege woon dama naan ko mu dal en tant que jigéen am beaucoup plus de dignité. tey lan ko xamee woon ba fonk ko. macha allah moom mu téye ci loolu. te bañ mm-hmm. doxee doxee nu neneen. Mm-hmm. parce que Sénégal fii daf ci am ñu maanaam dañ lay. Euh, maanaam dañoo rëy ningi te amuñu ngooñ da lay da lay dugal ci loo xam ne tey ji ëllëg mun nga cee wet ñu ña la puusoon ci loolu wala ginnaaw mais gis naa ne ci côté comportement daal na mu doon séye moo ma dàqal ni mu tasee macha allah jërëjëf Omar man de wax dëgg yàlla dama leen daan déglu lool waaye bi ñu séparé woo ku ci ne say way déglootuma ko wax dëgg yàlla man ñoom ñaar laa mënoon a déglu mais bi ñu séparé ku ci nekk moom say way foo xam na nga fa Euh, Souka déglu nga audio bi. li nga ma doon infiltrer sama xel mi li nga ci bëggoon wax léegi wax ko. waaw dama ne est-ce que kooku. <laughs> waaw est-ce que yooyu yëpp léegi wax ko. xam nga li nga wax rek ci euh, euh, groupement ba. Mhm. avant lii di am. waaw nit ñi dañ leen a nawoon. waa avant lii di xew. voilà avant lii lépp di am. Mhm. nit ñi dañ leen nawoon doon leen bàyyi ba ah. bu ma xool. bu ma xool ni nga may xool dafa metti kuy wax naa la ko voilà voilà donc muy euh, am na seen benn woy boo xam mooy bu mu naan couleur bu rafet baa ngi nii waaw eh, mhm. xam nga di couple boo xam ni couple boo xam ne ni même nit buy sëy sax danga naan nan def groupement bo nan def comme ni membre di def muy nduróole bi ñuy nduróole waaw donc ñu naw ko kii dafa am tey wax daa am wax ju mu wax léegi gis nga jigéen bu gënee nopp hmm. bu séparation amee day daal di wane day daal di wane day métti ci sa côté d'accord euh, léegi miyaa ñëpp miyaa ñëpp ko nawoon dama ko man dama ko nawoon sérieusement ah, audio bi moom xaw ma kan la du duma ci xool sama yoon nekku ci parce que waxuñu ni euh, noo fees la xama moo fees xama noo fees waaw dama ne waaw Abdou du moom waa léegi boo demee ci réseaux sociaux yi gis moom lañu gis ñëpp tiitre ko gis naa sax bu Adamo bi Adamo koy def moo gën a garaawati sax ndax gel bi day wax wala maa ko wax Ah. léegi Sénégal lu waaye wax neex wax parce que da ngay wax ñu jël la yu laaj la nga bañ nga bañ a dem ñu bun la jëlul nga daw dem feneen toog fa man Thiès laa jëm toog am problème léegi a wax ah Ousmane Sonko ngay kan nga ne kii nga daw Thiès toog fa. ah ba Ousmane daa daw dama ni man bu da nga ni ma ay. nga nag sooy bu nag yaa ngi may dugal de da nga ni ma da nga ni ma waxal ci lii man la gëmuma ko. xam nga tey ki ñu wax nii ba tey xam nga ba tey ki waxul moo fees danoo bind rek Mia am na ñoo xam ne leerul mais comprendre coow lu ñu ndaw si la. ak kim tuumaal waaw Mia bokk ci de. bi wax ni est que moom la. est-ce que mi est que waa su kaa. waaw mooy benn xale bu jigéen xëy na lay ni cëpp. ni kii daf maa takk takk suuf. di wax. kan moo loolu kay lañ la jàngat. mais ne kan kan moo ko takk takk suuf ñun xamuñu kan moom ba tey waxul. non fees mais waxu ko moom wax dëgg yàlla waxul moom fees waxul ko déggoo mun ko sa sëy bu njëkk ba la daj ba nga tasee yàggul est-ce que du dil est-ce kii déglu na affaire bi déglu naa ko bu baax ah, ah yow tamit xanaa dama xanaa man damaa toog fii di aay ah kañ dëgg de yaa ngi aayu dëgg yàlla moom ah, ah, déedéet aayu non damay liggéey wax dëgg yàlla te liggéey liggéey tax ma toog fii yow nag mais am na loo xam ne <laughs> kenn waxu kenn waxu ko yow tamit waaw baax na jërëjëf bi nga xëy jërëjëf mais bi nga xëy see pointé nga <laughs> kay pointage bi ku ko yor yow. affaire bët Betty. yow lu ma yow lu ma wax ci kër gi yow la lu ma def ci kër gi yow affaire pointage waroon naa mën a ñàkk ci plateau bi. Ah, service yëpp dañuy pointé. yàlla wala fajar yi fépp amul service booy def te duñu pointé. Hmm. Hmm. Nepad moom gëm naa ne doo am. ah déedéet dina am kay ay ayca noo gisee ojo bi xale bu jigéen bi kim ci attaqué wala tuumaal. man de xale bu jigéen bii. Hmm. li ma bi ma ko dégloo. Hmm. li ma ci jàngat mooy enregistrement la doon préparer exactement pour publier ko. voilà joxe ko ci réseau sociaux yi parce que man dégg naa ko TikTok. Hmm. donc moom moom moom moom bi muy wax loolu la doon sóoraale. te bi muy wax. bi ngi wax rek en sa faveur. waaw déglul waa ji sax mu wax. waaw waaw xaw ma waa ji wax na xaw ma waxul. mais daal moom bi muy wax dafa victimiser boppam. man loolu laa jàng ci audio bi. Euh, c'est malhonnête nag di wax ak nit di ko enregistrer rawatina même bu doon benn fan la ñu sëy ko mm-hmm. di moment que ni nangu na mu takk ko moo xam takk suuf la wala du takk suuf wax dëgg yàlla mënoon na ñàkk ci euh, ci réseaux sociaux yi euh, comme yaayam wax na mu bañ baayam wax na mu bañ waroon na ko sax rusa wax ni moom mhm. déggalul woon ay waajuram kon ki ko doon takk noonu mhm. dañ doon sëy même bu sëyoon bi normaloon du ko doon déggal dafa am loo xamante ni da nga koy jàngat yow ku góor ki balaa nga ciy dugg c'est ça parce que bu ma la takkee xam ni yow mi amoo kilifa mhm. nu ma neex laa lay jàppee bu subaa boo jaaxlee fooy dem parce que ña la tere woon nangu woo loolu la bu xamee vie xam li mu dund ak jabaram bu njëkk xam lépp mais attends et puis li ma ci gën a naqari mu ne ci réseaux sociaux yi la ko xamee waaw loolu la ne nag fi laa la xamee rek. joxal saa. aywa alaaji. waaw noo jàngatee mbiru xale bu jigéen bii nii waa ji koo takk takk suuf. xale bu jigéen bi mooy Fatam de ah bi. moom lañ teg ci réseau yëpp. foto bi mooy kan. moom lañ teg ci réseau yëpp. c'est que il faut am na question yoo xam ne dañ ko war a poser parce que dafa am benn situation bu ñu teg. Mhm. boo xam ne boo xoolee situation bi. Mhm. Euh, dafa am lu ñu bëgg a gëmloo. maanaam bu ñu toppee benn logique naan diw la diw. Euh, dafa am lu ñu bëgg a gëmloo mais dañ ñu wax nañu amul maanaam li ñu bëgg a gëmloo amuñu fu ñu mën a sukkandiku. ngir mhm. gëm ko. Mhm. parce que man jàpp naa ne xale bu jigéen bi ñu taf fotoom. Mhm. Euh, du moom. ñu ko ma ni mooy wax. Euh, yow muuraay gi nga foog ki ñuy waxal. gëw ma ni kooku la ñuy waxal. waaw léegi. waaw dafay ragal beneen complot am. mooy. parce que depuis quelque temps dafa am ñaari nit ñu am ay jafe-jafe du dëkk mhm. mu am kenn koo xam ni moom. Mhm. gis nañ ni mi ngi am benn façon comportement ay gaaruwaale. Mhm. keneen ki tontuwu ko ci gaaruwaale yi nga xam ne moom la ñuy gaaruwaale. mais kii moom chaque jour mi ngi wane ni kii mu nekkaloon du ko baax. mais kële moom delloowu ko mbir mi ping pong amut. silence rajo. léegi est-ce que nekkuñu pour montre que ni créewaat beneen mbir mais dañuy wax takk suuf mais léegi dañuy wax takk ci biir takk suuf day mel ni kon euh, tey jii bu ma bokkee ku góor ki mhm. dama naan ah kon li muy takk suuf moo tax mu nëbbu ma ko te peut sax mën naan am takkut. d'accord yaa ngi dégg. dégg naa te ki nga xamante ni kii tey moom lañ ñu présenté. du mhm. ko kenn xam. ku góor ki wala ku jigéen ki ku jigéen ki ki ñuy wax. kenn xamul du ko kenn xam. mooy kan. Hmm. waaw daa waroon génn xar kanamam wax ab photo la ju indil. Hmm. man femme bi munu ma munu ma munu ma nangu ni. Hmm. moom mooy ki nga xamante ni kii. mooy wax ci audio bi. maanaam dama jàpp ni liñ ñu bëgg a dugal mooy comme li ñu wax ne. diw wax ñun ñu yeggaleel leen seen i mbir. très bien ah, naan non waaw tey heureusement bon ci plateau bi boobu gisuma kenn koo xam ni dugg na sax ci logique boobu euh, mais. tey ji ñu doon wax naan way Eh, sawaay nu mu tudd No Face No vraiment li mu def waru koo def bu boobaa rek ñi ngi ci jeu bi mhm. mais génnewuñu benn élément bu war a mën a tax li Omar wax foofu laay dellu que ni ba ma koy attribuer waa ji ne moom la ñuy waxal parce que fexe nañ yow ba voix bi nga xamante ni bi moom nga war a dégg mhm. pour mën a comparer ndax No Face la wala du moom Mm. indi luñ la ci sax lu leer. fi muy coupé rek lañ kii. waa indi luñ la ci sax lu leer. indil nañ la ci ay sawa ak ak yooyu mën naa ne ku ne. Mm-hmm. mën naa ne sax sawa boobu mën naa ne man wala mën mën naa ne. moom sax <laughs> comprendre mën na nekk rek kenn koo xam ne mën nañu jouer seen kii wu téléphone. Mm-hmm. jàllale ay message wax wax ju ñaaw joo xamante ni bii moom la ñuy wax waa mm-hmm. pour wax ju ñaaw jooju wër réew mi. parce que Sénégal am na yu bari yoo xam ne duñ ko ki mais man jàpp naa ni daal euh, mbir mi daal ay tappale moo ko lal kon jeex na voilà mi ngi noonu kon euh, mi ngi noonu xam naa nga baal ma profité ci rek am na benn ustaas bu ñemee yàlla bu ma ci dégg euh, Fall la sant mi nga ca rajo ba ca wetu ndox ma nee na takk suuf dafa xaraam te waxul dëgg. xaraamul hmm. <laughs> takk suuf de bu dee dangaa dem ay boo dee bu dee da dem ah, ah. ay imam may maanaam ñu may la ko ci farata ñu may la comme ni ñu mayeb sëy lu ko araamal. takk suuf oh. nit ñi dañ ko yëg

àttee lu loo xam ne sa xel nga ko teg waaw ah, bul ko defaat nag voilà yow da ngaa war a dem jàngi ngay jàngale euh, bu alxamisee ñu dalal <laughs> Aliou Sow mu leeral tuuma yi ñu teg ci deram bi ci réseaux sociaux yi ndax moom la du moom <laughs> ay co mi ngi noonu ñu ngi koy jaajëfal lu mu ràbb rek rax ci përëm sony bu Diop jaajëfal naa la bu baax a baax